بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñuy déglu te duñu seetaan noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen balaq di leen balwaq ci ndégalool alxalifatul aam li taifatil muridiya Sidi Moxtaar Mbakke ak kilifteefu ak jawrinu Sëriñ Muntaqa Mbakke noo ngi toog fii di jotal ay ndigal yu bàyyi ko ci ñoom jëm si ci nun mboolem taalibe yi ak bokk yi ak jullit yépp di xamle ne sëriñ bi dafa ñoxe ndigal loo xam ne bi mu jaaree ci sëriñ Muntaxa teg na ko ci loxo yi sëñ Maam Moor Mbakke mii mu jotal ndigal lul sëñ Muntaxa li bàyyi ko ci sëriñ bi jëm si ci nun taalibe yépp kon nu maase déglu sëriñ Maam Moor Mbakke moom sëriñ Muhammadul Faadil Mbakke bisimilah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه bokki jullit yi ñuy déglu yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen jotal ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci sëriñ bi ni ko sëriñ Mamoun bu sa waxee rek na ko sëriñ bi daan defee rek daa ko joxe ndigal noonu rek la ko defaat ba tey joxe ndigal ci njàngum alxuraan loolu nag nu teewal fi sunu kilifa gi nga xam ni moo ko baaxoo taxawe muy sëriñ Muntaxa Mbàkke mu Seex Ahmadul Basiir dafa nekk ci liggéeyu sëriñ bi moo tax mu yabal nu nu teewal ko fi teewal fi itam sëriñ Mouhamadul Basiiru Mbàkke moom sëriñ Fàllilu mi nga xam ni moo sëriñ Basiiru moom sëriñ Abibu ñoom ñi nga xam ni mbooloo yi nga xam ne ñoo jëkk a taxawal luy sàmm daare alxuraan ak di ko saytu bokk nañ ci ñi ko jëkk ñi ñi ko jiite ñooñu itam ñu ngi ñoom la ñoom lañ fi teewal sëriñ sëriñ bi wax ni joxoon sëñ Maamoon bu sa ndigal ni ko na nga dem ànd ak bokk ya ko daan def ñu soññewaat njàng mi te jàpp ko alxames jii di ñëw muy fukki fan ci we ci weeru tam xarit sëriñ bi nag bu dee digle njàngum alxuraan dafa xam fi nga fi sëriñ Touba teg alxuraan ak li alxuraan man ci wàgga sëriñ Touba ndax sëriñ Touba ñaar rekk am mooy dafon ak jëlbu sëriñ Touba nag ñaar yooyu yëpp ci alxuraan la koy def wax na ni rajaw naa min al mawla bihi xayra matlabin wafus naa bihi fi kulli dafin wa fi jël bi lépp lu muy jiñ mbaamu ji ko ñoddi ci alxuraan la koy jiñe ci alxuraan la koy ñoddee jàng alxuraan itam mu soññee ko lool wax ay njëriñ yu baree bari yoo xam ne am na ko am na am na am na ko bokk na ci li mu wax ni qiraatul quraani lil jinaani lii junnatun taaba biha janaan yi njàngum alxuraan ba àjjana ab pakk lay doon boo xam ne bii moo may fegal lépp loo xam ne naroon naa jublu si man ci aw ña ay ñaawteef dellu wax ni man qara al qur'ana min azan amin xat qultu za wal qalbu minni mutmain jàng alquran day musli ci ay lor lii nag wax naa ko man Serigne Touba te bi ma koy wax maa ngi ànd ak xel mu del sëkk ci ni nii ma ko waxee noonu lay amee yooyu nag moo tax Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo ko fi nekkal na ko kilifaam yu baaxee daan defe at mu jot naam bu nit murit yi moom bis bu set ñu ngi ci alxuraan ndax ñii ñu ngi jàng suba bis bu set ñii ñu ngi jàng juróomi si bis bu set ñii ñu ngi jàng ñaar fukki si bis bu set ñi ci des ñu ngi ci daare kaamil yi di jàng daare it saa bu nekk ñu ngi wàcce ay kaamil waaye nag sëriñ bi dafa mel ni alxuraan moom day toolam boo xam ne bii du ca doyal mukk moo tax sëriñ sëriñ sëriñ bi itam wax ni at mu jot nañ sàkk ay bis yoo xam ne dañ koy jagale alxuraan mu wóor nu ni liggéeyal sëñ Tuubaa lañ ci jublu ci ci ci njàng ma loolu moo tax mu soññee ko di ci soññ nag bokk yëpp niñ niñ bëgg ñu doxale ko itam insha allahu ci kanam tuuti sëriñ Xaadi Jaxate na ko leeral defin wi ak barab ñu koy defee ak nañ ko war a defee ak biseñ koy def ak ak ak waxtu yaak lépp ak la ca la ca war ci ay ay tiraanga te ak ñam ko gàll li ñëpp sëñ Xaadi dina dina dina ko leeral sa bool na ci itam ni nañ sàkk ay sarax loolu lépp dinañ dinañ ko leeral ndax sàkk sarax itam ku ne xam na ni ko ni ko sëriñ bi daan li sëriñ bi wax ci Masaalikul Jinaan am solo gi mu am solo ci doomu aadama ak li mu koy fa li mu koy fegal ak li mu koy li mu koy indil ci ay xéewal loolu tax na moom itam ak li mën a fekk ci ay balaa tax na moom itam mu soññee ko bu baax a baax a baax sëñ xaal dina ci ñëw insha allah ñu dolli ci itam tuuti ndax sëriñ bi moom alxuraan rek la am moo def toolam waaye nun tam am na tool boo xam am na toolam boo xam ne bii noo ko ci war a bàyyil muy xasida yi lu ci waa ku ci mën a jàng xasida nga bo boole ko ci nga boole ko ci ndax xasida yi lépp ci alxuraan la la jóge ci alxuraan lay dellu ndax li ci li ñaar yi ci gën a am solo te sëriñ bi liggéey ci mooy mattoo ak salaatu te ñaar yi moo moo gën a am solo ci xasida xasida yi kon nag ku mën a ku mën a jàng alxuraan baax na ku mën a ku mën a jàng xasayit baax na lépp ñu def ko addi sëriñ Tuubaa te fas ci ne ñaanal nag kilifa gi nga xam ne moo moo ko fi toogal di Seex Sidi Muxtaar saa borom yàggal ko fi te wéral ko ñaanal mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi saa borom yàggal leen fi te wéral leen ñaan mboolem kilifa yi diine yi saa borom yàggal leen fi te wéral leen te masoliyaat yi nga xam ne moom lañ teg seen bopp saa borom dimbal leen ñu attan ko te yenn ko te doxal ko na ko seeni wajur bëgg noon noonu la sëñ boo xam nañ ko def da nga ko wax nag ci ndigalul Cheikh Madul Muntaqa te jéggulu ndax bu fi nekkoon la lam ca war a wax lépp ak nam war a dugge taalibe yi wacc naak suñuy kàddu ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bàyyee kàddu ga sëñ Xaadi mu wax mu yokkal lim ci leeral lim ci war a leeral jërë ngeen jëf
bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi ummati ajmain salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di sof sunub nuyoo ak sunub siyaar ci nuyoob kilifa yi ak seenub siyaar di leen ndokkeel di leen balwaaq ci at mu bees mi ñu nekk mu mel ne kilifa yi jiitu leeral nañu ndigal li ak it ittewoo gi nga xam ne sëriñ bi ittewoo na ko alquran defe naa li ci sëñ Maam Mor junji doy na ab juliit ci mu gën a bàyyi xel ci alquran baax a baax kon bu ñu ko sëriñ bi dee digal loolu mu wax rek ak yeneen yu mel ne moom ya bari te waxtu wi mayu ko ko moo tax kon ginnaaw waxtu yi dafa xat nag dañuy jublu rek ci defin wi muy alxamis jii di yow ma asura nga xam ne mooy fukkeelu fan ci weer wi kon alxamis yi gannaaw suba ji ci lay sëriñ bi digle ne mboolem fu ab jullit nekk mi ngi koy digal mboolem kuy ab murit te di ko sàkku ci kudib jullit ñu maase def ko bisub tuubal suñu borom jéggalu ko jàng alxuraan sàkk ay sarax ne loolu nag kon noonu ñu ko waxee ndigal la loo xam ne da koo jox képp kuy ab murit waaye it di ak laa biire gu muy sàkku ci képp kuy ab jullit bëgg ñu tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji ci Touba ak bépp barab boo xam ne jàkkaa nga fa wala jumaa wala daara mbaa barab boo xam ne sax mbooloo baaxoon nañ faa dajee bëgg na daal bis boobu ñu xëy tuubal suñu borom toroxlul ko jéggalu ko waaye ñëpp maase kaddug suñu borom gi tabaaraka wa taala di jib ci kaw suuf ci pàkki suuf yi wet gën a mu di fa bàyyikoo di yëm ci moom di ko bakk di ko ñaan ndax xam na ni jullit yi aajo woon nañu ko donga yi aajo woon nañu ko bu baax a baax kon li ko tàmbalee ci jumaa ju mag ji su dee ci biir dëkk bi ni nga xam ne noonu la ko Cheikh Mahamadul Muntaqa baaxoo woon a diglee barab yu mag yi fi nekk nga xam ne kilifa ya fa nekk ñoo fa nekkal sëriñ bi moom it naka jekk dafa daan digle sàkku ca ñoom ñu soññe barab yooya digal ña nga xam ne ñoo fa jege ñu dundal ko ca barab ya te lépp loo xam ne mën nañ ko it ci wàllu bernde yóbbu ko ca barab ya ña nga xam ne ñooy ñay jàng njàng ma ak it néew doole ya nga xam ne ñoo koy dégg di fa ñëw man caa xewlu sarax yi nga xam ne nit ñi ñi ngi koy sàkk ñu yóbbu ko ci barab yooyu yi moom it ñu defe ko noonu yi rek tasaare ko ca diggante ñay jàng-njàng ma ak néew doole ya fay ñëw ndax bis ba doon bisub xéewal ci ñëpp loolu kon kenn ku nekk barab ba la gën a jege su fekkee ci jumaa ju mag ji la nag dañ koy yóbbu ci jullikaayu ayit bi incha allahu taala dinañ fekk sëriñ Abdou Diop al imam ak ñi nga xam ne ñoom lay àndal lépp lu caaj ci wàllu sarax ya foofa lañ koy yóbbu bu dee keneen ku mu doon it te xam ne xaw ngaa sori te dend ak jàkka wala daara mbaa barab sax boo xam ne mbooloo ma nga mbooloo maa ngi fay jàng mooy mënees na ko faa yóbbu moo xam muy bernde yi muy sarax yi ba ci biir réew mi it fu fi fu fi mbooloo nekk tey mbokki taalibe moo xam kon loola ñu soññ ci ñi nga xam ne ñoo nekkal sëriñ bi ci barab yi ñu leen tuddee ay représentant ak it daaira yi nga xam ne ay daaira yi sëriñ bi lañ bokk ci njaboot gi fu ñu fi mën a ne sëriñ bi mi ngi koy sàkku ci ñoom ñu def ko bis bu alxuraan waaye nee na noonu it la bëgg ba bitim réew fépp fu fa kër sëriñ Tuubaa ne wala daaira sëriñ Tuubaa mbaa mbooloo moo xam ne mbooloom jullit la ñëpp rek ñu maase ko bu dee biir dëkk bi it noon biir réew mi noonu yi mu ko waxe woon ci njalbeen gi sàkku na ko it ci mbokki jullit yëpp ñu ànd ko ci jumaa yëpp ci daara yëpp ci fépp fu mbooloo di dajee alxamis ji incha allahu taala ñu tàmbali ko ca ba keroog ñuy àgg ca aju ca ca ca ca ca gaawu ba nga xam ne bis yëpp bis yi jàng alxuraan lay doon day tàmbali rek ci alxamis ji su ko defee loola lépp nag ñu jublu ca toroxlul suñu borom jéggalu ko ñaan jàmm ci réew mi suñu borom wàccee ak dal dolli ay xéewal defal jàmm kilifay diine yëpp defal jàmm njabootuk diine yëpp ba ñu tala suñu ba ñu tala jaamu suñu borom ni nga xam ne noonu la ñu ko sante kon dafa mel ne mbokki taalibe yi lii lépp yërmande rek la joo xam ne sëriñ bi daf ñu koo ëmbal te na nga xam ne noonu la ko Cheikh Abdoul Ahad doon waxee rek lépp lu ma xam ne seen njariña su ma ko mënee dama koy def su ma ko mën te xam koy dinaa leen ko wax kon loola tegtale ne njabootu sëñ Tuubaa gi seenu doxin wenn la loola rek la Cheikh Sidil Muxtaar gis ba tax waxtu wu nekk muy santaane jàngi alquran di santaane jégglu di santaane mbooleem yi nga xam ne mi ngi koy santaane kon su ko defee ñu bokk bàyyee ko xel noonu yi ñu ko waxe woon moo xam ci njàngum alxuraan mi la mooy jëmmi bis bi ci boppam xasida yi ni ko sëriñ Maam Moor waxe ñi nga xam ne moo gën a jàppandi ci ñoom ñëpp waaye it sarax yi ku ne xam na sarax loolu mu jot a tudd taxawaay li mu taxaw ci ab jullit ci diggante dafa ak jal bu moomu waaye it berndeel ñi nga xam ne ñëpp ñoo xëy bàyyi seeni itte nekk ci ndigalal sëriñ boobu yi di ko jëfe muy alxuraan rawatina la ci gën a bari di ay donga yoo xam ne dañu jóge ci daara yi dem ci barab yi di jàngi te am na ci ñoo xam ne ñàkkul dañoo waroon su bëccëg jotee ñu génn dem wuti ko te ndigalal sëriñ bi tënk leen kon loolee yaakaar nañ ne taalibe dinañ leen dinañ leen topp ak bernde fu ñu fa mën di nekk ba ñu mën koo maasale ba ba ñuy julli tisbaar buñ sëlmalee tisbaar nag incha allahu taala ci jumaa ju mag ji sëriñ bi dana jàng xatmu bi su ko defee keneen ku nekk am na ndigalal jàng xatmu fa mu nekk ñu maasee ñaan ko noonu ñu waxe woon ñaan jàmm ci réew mi toroxlu suñu borom jéggalu ko waaye it ñaanal sëriñ Sidil Muxtaar ak mboolem kilifa yi diine yi ñaanal it njabootuk diine gépp ba ni nga xam ne moo tax suñu borom indi ñu ci kaw suuf ñu mën caa taxawee nim ñu ko sante yàlla na ko yàlla defee noonu yi loolu ba tey ci ndigal li sëriñ bi xam le ne ngir bëgg rek ñëpp ànd maase yiw bi bañ a raw kenn bëgg na sax képp koo xam ne yàlla dogal na mu am gàllankoor bu munta jàng moo xam ay xat-xat la wala ñàkk a man rek la ak tële lu mu ca doon mu jéem a seeti ku mën a jàng mu jëflanteeg moom luy tax mu mën koo jàngal kon daal dafa bëgg mu yiw woo xam ne bu mu raw kenn ku ko mënal sa bopp nga def ko waaye koo xam ne bii am nga lu la gàllankoor ba mënoo koo defit na nga fekki koo xam ne yàlla dogal na moom mën a jàng nga jëflanteeg moom seral xolam ba mën laa jàngal ba tax yiw wii nga xam ne moom la ci sëriñ bi yéene te séentu ko ci mu mën a daj ñëpp yàlla na ko yàlla def ci barkeb sëriñ bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu